bopp écrit bi tey ngeen jëm bis bu am solo le 6 novembre euh, seen diggante ak Siteu fa lañ préparation bi waaw ñu ngi ciy tool préparation boo gisee paaso nga xam ne noppalikul barke moom am entraînement mooy premier turam boo nee paaso deux doo ci teg muy entraînement am de du combat xam ne dafa am foo xam fu mu koy yóbbu pare am de lu may gën a wax na xale yi maanaam mobilisation yi Sénégal da ngay gis ñoo xamante xale yi ne di toj stade wala di yàqu loolu laay gën a rab ndax yàlla noppi ba pare suñu rakk la suñu lépp la Ousa Sow moom a jàngal bëri 2004 laa bëri la déggee de Paaso ba mu bëri la déggee de ma ba tey cinq ans wala six ans kon lamb xam naa ko am de ci nekkee na xale yi yaru mobilisé wu ñëpp am comportement am yar ak teggin ndax lu xew rek yaay jël sa bàyyi kenn moomu ko alalu état yi ñëpp ko bokkoon lépp dañ ci def entraînement ba ko ajjee ba léegi poisson na combat bi am na fu mu ko fonk am na fu xam tey bu ñëpp am foo xam teg seen egg ndax ñaari combat yi ku ci daan sa morom rek fu la neex nga koo laaj am de mi ngi jël adversaire nga xamante mooy Gouye Gui mu ñëwaat jël ki nga xamante mooy Papa Sow bi première fois coronavirus yàqu ko deuxième Pape Abdou Fall tëgg ko combat bi mujj yàqu ngir ay problème de coow yooyu jàppal bàyyil est-ce que xam ngeen adversaire bi ngeen jël wala est-ce que aussi tamit xam ne importance bi nga xam ni combat bi am na ko. waaw Paaso xam ne combat bi kii la déggee am déet bëri ak Balla Gaye xam nga ni combat boobu am na importance ndax boo xoolee Paaso bëri naag Lac de Guiers 2 bëri naag Balla Gaye 2 am déet bëri naag Pong Nees xam nga ni combat boobu importance bu ma am moo la ko gën a xam fu ndax ku boo xam ne a ko bëgg ci àddina am déet ñaanal Mansour Ba ndax boo xoolee tey ba mu ñëwaatee nekk xale bu ndaw nekk xale bu ndaw am de ñëw xool combat bi tëggaat ko te fu Mansour Ba dañ koo jox cër nga xam ni kooku dafa delloo dañ ko war dëgg combat poids foofu Siteu jël amateur kontaan ndax lu leer woon mu indi ko mu leeral ko ñëpp bëgg leen xam nga xam ne kon Mansour nañ ko ci ñaanal ba mu ñëw daal nekk ci promoteur yu mag ndax day tëgg te caaxaanul am de boo dee xool parcelle booy yëpp dugal na ci combat yi ndax bëgg booy am lu ñu yóbbu seen kër loolu comportement la loolu nit ñu baax la am na ñoo xam ñu yor seen àll ñu koy yóbbu fu leen neex mais dafa tëgg booy yëpp nit ki xam tey paasoo dafa gëj a bëri gëjul bëri gëjul ndax koo xam ne da ngay ñëw yaa ngi entraînement di contact ak Modou Lo ñoom laay Pythagore ci waxam ñoom Franck ñoom ñoo xam ne paasoo yaramam dafa mel di man mi rek toog naa at bëriwu ma mais sama yaram moo gën a mel di barke alxuraan da ngay xool ci ne barke jeexal ndax yàllaa dul jeexal demal armée gis nga ku la mat ñaar tëdd na fa kon bu ñu jeexalee yàlla la fi nekkee mi ngi waaw mi ngi ndax bu koy wax waaw mbër yi koy wax dëgg mbëri waaw mbër yi ñëw di ko wax ñoom xam na dañ diw dafa jeexal ñi jeexal ña nga armée la tëdd képp gis muy nooy fii jeexalagul boo mi ngi noonu mi ngi yooyu tey ñoom suñu demee xamul loolu waaw mi ngi ndax loolu comportement di ñaan Papa Sow na ko yàlla may ndam booy nag mobilisation daa bëgg ñu am ci yar ak teggin am de stade bàyyi kenn moomu ko ba ñuy def stade di sànni xëy wala ñu daan sëmër ngay yàq siège yooyu noonu te seen papa tabaxul mi la ñëpp ko bokk wala manifestation ngay jël tëli toj ñu yàqaat loolu dafa ñaaw waaw loolu di ngi noonu di damm ay chaise mi te seen waa kër ku ñu ci fay woon dix mille chaise ngeen nekk Éthiopie kon loolu jarut a damm nañu bàyyi foofu chaise yi ku ñu daan sa mbër nga xam nga débaraat ko jëm jekk yóbbu dem yóbbu am de ñi daan yàlla mayaat leen beneen combat ñi daan ñu am ci ñi daan ñi leen mu sampal ko tànkam jox ko ko mu ñëw ci tànk bi si tane na man na koo bàyyee tànkam waaw waaw Siteu bu ko mënee bàyyi tànkam it passé bu ko passé loxo yi rek jeex na tànk laa mu loo bàyyi nit mu laa loolu amul benn problème li Siteu la wax la non lu wóor lu wóorul yëpp xam nañu wóor naak wóorul yooyu yëpp stratégie dóor ay mbër la yi stratégie ñii mais yooyu amul loolu lu muy bari lu wax mooy que ni bi moom ah. lii moom combat bi moom day leer nañ moom combat bi moom foog jël am rek barke alxuraanu karim yàlla nañu ko yàlla barke alxuraan dama bëgg ñu fi xeex trente mille ba nga xam ne ñoom xeex nañu ñu xam ne fan la xeex na waar dëgg la dëgg la góos bi doy na waar ñëpp bëri na ñoom góos bi yàgg na bëri di xam ne fi tey mbër la boo xool da ngay xam ne mbër la ndax tey mbër du kurul mbër ki nga xam ne mooy Siteu dóor fi mbër parcelle mu daan da muy jos waaw dëgg la dóor naa ko lamb yu bëri mu dóor ndir mu daanu ma ni dóor naa ndir mu daanu loolu jarul wax ndax dóor mu daanu kenn du ko yóbbu ca lamb ja ñun xam nañu lamb man génération mi ngi noonu te ñëpp daa jëfan jëflante na ñoom ah. waaw mi ngi kon làmb dóor mu daanu kenn du ko yóbbu ci làmb ji day neex làmb loo ñëw defar sama waaw mais mën naa mais kenn du ko yóbbu ci làmb dóor mu daanu kenn du ko yóbbu ci làmb demal bëre jàpp daan wala demal mbapat rek la ñuy yóbbu daan waaw di leen ñaanal may wér am na yokk mobilisation bi dëkk bi yëpp ak ki ko tëgg muy Mansour Ba ndax bëgg lu baax moo tax mu ñëw leeral ñi te Mansour ñëpp xam nañ jukkoom yar la ak siraatal mustaqiim ak bëgg diine loolu tey boo ko defee tey xam nga arbitre moom bu siflewul ku ne da wax mais nañ ñaan yàlla rek arbitre sifle xam nga yëpp stratégie la mhm. yëpp stratégie la tey booy ñaatey am na lu ma waxoon tey si Balla Gaye bu arbitre sifle cinq minutes yu papan da koy wàññi stratégie la yooyu yëpp àlla ni kon affaire bi mbapat la mi ngi noonu yooyu yëpp da ngay xool stratégie ñun yàgg nañu bëre yàgg am de ndax combat bi fu ko paasaw teg barke alxuraanu karim mosu koo teg ci yeneen combat yi yàlla nag moo yor ndam yàlla nag ku doon ku doon nit ñoom nit mooy joxe ndam dañuy ne mooy jor ndam waaw yàlla moo yor ndam soo xam nga papa ku ne xam ne yaa moom benn ngeen yéen a dëkk yéen a bëreendoo yéen a defandoo lépp muy sarak tey qualité bëre bi ñoom ñaar am de Paso tey nu ne lay bënnee gis ngeen ko ci làmb daana moo gën a yéeme wax leen rek te wax yàlla tax mar ñu atte l'islam ak kii ndax ñëw ma par par loolu déggoo ne ma am de ne atte ngeen xool ko loolu maa li yéen ma ko gën a xam yéen ñu journaliste yi chaque jour ngeen gis combat Paso waaw waaw yow mi ko gisoon nag ne yor journal di ko filmé te man filmé wu ma ooma lu ma filmé yow mi koy filmé denc ko ci YouTube denc ko seen seen ngeen ko génne ngeen bu ñu xeexee tey avantage tey Papa Sow Papa am na rono déggoo yooyu yëpp am na tey pas léegi nga gis ku njool ku jaaxal nit ku xeex léegi léegi ku njool jaaxal ku gàtt ci xeex. yow ci biir combat yow sax mos def adversaire boo xam ne moo la sut la ci. man adversaire mo yow bokkul mosuma ndax man bëri naa ak Jaguar moo ma su peeg Jaguar peeg deux la mais lamb ji ko ah. barke da déggoo la benn la ko ndax bu dalee damay daw jàpp ba ma ko dóoree ñaari Touba Dakar daa xamante bu Touba Ndar ñëwee mu tëdd damaa jox wet gi ma def ko nu ma neex dëgg la lamb dafa yomb lamb dafa yomb waaw lamb jafewul ah. lamb bër tey waaw bëri tey Pape ba may bëri laasana Pikine ba ñëwee di dafa mën a xeex ba ma ñëwee dama ñëw dafa mën a mbappat dama ñëw wàcc sama xeex mbappat ak moom yàlla jox ma ci ndam nongu loo indi ko ci deux cent cinq bi man fàttiwuma men muy gaañu yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ñooñu comportement la si àddina nongu loo yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana tey indi na laasana ma daan ko Pape Tine Sandika beneen bi côté baatin parce que bu ma la gisee nii nga ñëwee nii ci géej gi li nga sol rek ça veut dire day wane ne kii xanaa kon mbirum baatin mi tamit da ko bëgg a rax ci combat bi daa am loo làq xanaa dëgg la du question li boo demee ba yenn âge yoo xam seen at yu mu yokk yaakaar ci làmb sax bugguma ko ah. ndax quarante cinq ans rek doy na man mii tey bu tey ji yàlla bu ma yàlla dimbali nga bëri am quarante cinq ans nga bàyyi ah. amaguma ko nag mais tey mais bu ñu jokkaatee ay trois ans ay ma ñëwee comportement dama lay woon ne diine dee day damay bàyyi bëre waaw moo tax ñu boo gisee boo gisee tey nit ku ne yàlla bu la dimbalee ba nga xam ne am nga 40 ans defaraatal sa bopp jël sol ay yére ndax dee day métti dee day bette dee bu doon ñëw ordre ñëppay dem àjjana mais désordre lay ñëwee ku dee bàyyi mbabat caw jur ngaan kee eggale yàlla day bette ay mbiram am am day bette ñàkk day bette màgget day bette dee di bette kon na def très attention du ñëw par ordre désordre lay ñëwee da ngay gis ñu ni kee moo paa bi moo war a gaañ wala paa bi màgget na ñu yeew suba nekkee liir xam ne mbiru yàlla dafa yéeme yàlla nañ yàlla xiir yàlla nañu yàlla xiir si salaatul mustaqiim question bu ma laaj ma tontu la. waaw man benn question laa laaj ci côté euh, làmb ji gis nañ ne lamb dafa ànd ak violence. tey jii ñu bëri dañu bàyyi dem làmb parce que buñ fay bu ñuy dem bu ñibbisi li ñu yore woon sax duñ ko àndaale. ñu dul jël non dama lay laaj. si ban ban message ngay lancé ci ñi nga xam ne mooy seen supporters yi. supporteru euh, Siteu ak supporteru aussi Papa. violence violence boo fayee dugg ci gab bi jël sa xaalis bee tool sa yére yu rafet doo indi violence ñu tekkiwul ñu dara ñoo fay indi violence kaay leen ubbi porte bi ñu dugg ak ñi nga xam ne ñu yalwaan paas ñoo fay indi violence ku ko fa def ñu jàpp la noq la la ba nga xam dootoo violence yi ah. ndax dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk maanaam de muy supporté Papa Sow ku ñëw pour yàq lamb ji dañu la jàpp noq la ah. ñu ba jekk dañuy xëcc gab bi ay euro génn nga xam ne may ma biee oma biee réeru ma dem fondaare ñoo ñooy yàq lamb ji ak waa mbalit yooyu ku ko ci def oto mbalit la leen bépp noq ca xaj lamb ji continuer